wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen balu àq di jiital kii ziyaare bi sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te ko ak mbooleem njabootu sëriñ bi mbooleem taalibe yi di ak ziar di ko jëmale ci ki nga xam ne moom la yàlla teg ci boppu njabootu Cheikh Abdou Ahad muy sëriñ Mbàkke moo mbooleem njabootu Cheikh Abdou Ahad ñaanal leen yàlla sàmm leen wéral leen te guddal seeni fan di ziyaare bu baax nag ki nga xam ne mooy sëriñ Modou al imam sëriñ Modou Ablaye ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Bachir nga xam ne ñoo teew ci jataay bi di seenu jataay di sant bu baax waa daayiratu xidmatil xadim ci saraf bi ñu ñu defal boole ji ci jotaay bu mag bi ngir ñu ubbi waxtaan wi ci war a am te ay kilifa war koo seq mu mel ne dañ leen war a ubbil jotaay bi rek noonu ci ni ko sëriñ Hamzatu waxe sëriñ Abo nekk ci suñu wet incha allah lu ci leerut dina ko leeral bu noppee mbokk yi fi teew yëkkati ci ay kàddu ku ne xam na ne jamono bi ñu nekk jamono la du gaaw ci ni muy soppi jamono ju joo xam ne la li nekk ci suñuy kanam ci ay défi mooy fi ñu bëgg a fi ñu bëgg a jëm nañuy def ba àgg fa défi yooyu waxtu wu nekk day gën a yokk loolu dafa laaj ci mbooloo mu nekk muy def li ñuy wax muraajaa mooy di xool ab tolluwaayam di xool ni muy doxe di seet lam cay gën a mën a dëgëral takallamta wa ramana soppi ndax alquran mi ngi ñuy jàngal waxtu nekk ñuy def muraajaa di refuser di xool suñu bopp ak suñu nekkin di def muhasaba ak muraqaba yàlla mi ngi ñuy wax ne wa fii anfusikum afala tubsirun ñun ñu nekk kon ak société bu nekk war nay xool fu mu toll ay tolluwaayam ak mbiram aku doxinam te lii di yoon wi Seexul Xadiim radiyallahu xàlloon muy almuridiya ku ne xam na ne suñu boroom def na ci muy tasaaroo tasaaroo bu gaaw di màgg màgg bu gaaw te loolu dafa baaxoo di ànd ak ay soppiku moo tax yoonu murit ci li ko yàlla defal ci ab yokk akub tasaaroo mu ànd ak ay soppiku yoo xam ne noonu la àdduna di baaxoo amee ndax li ñuy wax changement social nga xam ne aw xeet wu nekk nañuy dunde léeg-léeg day am ay soppiku yu cay am te loola doon loo xam ne noonu la yàlla binde jamono ndax ya koy waral yu bari la bokk na ca mbooloo mu yokk fi barab seenu nekkiin dana mën a dana léeg-léeg dana soppiku boo ko seetoon rek ak kër boo xam ne ñaari nit ñoo ko dëkk bu mu demee ba mat fukki nit rek nañ dëkke woon ca kër ga dina am soppiku ab dëkk bu doonoon fukki ba buntu kër ñu dem ba mu yàgg muy junniy buntu kër wala muy dem ba téeméeri junniy buntu kër bu boobaa dëkk ba nañ fa doon dundi dana am soppiku kon yokkute ci doomu aadama dana bokk na ci liy indi soppiku ci dund dunduñu ak communauté wàllu koom-koom sax dana bokk ci liy soppi dundinu ab communauté foo xam ne tey dañuy dund bari wuñ woon koom-koom ñu jékki-jékki ba mu yàgg am koom feeñ fa loola bokk na ci liy tax aw dundin soppi ko ndax loola dana soppi nañ doon dëkke léeg-léeg dana soppi nañ doon doxale loola mën naa dem ba soppi seeni relation ni seeni jëflante culture muy xalaat ak xam-xam bokk na ci li mën a soppi aw nekkiin mën a soppi aw dundiin ndax nit ki saa bu demee bay xam lu mu xamutoon du gis la lu mu daawul gis xelam di am lu muy xalaat lu mu daawul xalaat lola man na dem ba soppi ci aw dundinam soppi ci ay relation kon li ñuy wax ak ku ci am mbolo muy dundu lolé di ndox mbooloo muy mag lolé mbir la yo xam dafa dekk dafa taxoo ak bakhinu jamono dafa taxoo ak ni yalla su mu suñu borom bindee jamono ci boppam motax kon xalaat bi nga xam khidmatul khadim am nañ ko bay tek tomb yu melni ngir waxtane ko lola ak ñor lay tegtale ak am responsabilité lay tegtale xam ne sa mbir bopp ya ko wara saytul sa bopp ya ko wara xolal la nga ca wara gëna dëgeural ak la nga ca wara gëna baxal ak la nga ca wara a sopp ndax kat arab yi daanañ leen ne ma xàkka jildaka mislu rofey kon xalaat bi ñu am ba tànn thème bii ne nañ ko waxtaane lu am solo la ndax bëriwul lu ñuy xalaat thème yu mel nii loola nag li muy tegtale kon mooy ak ñor ak bëgg a def lu baax ak bëgg jëmmale kanam li nga moom loolu nag lu mat a la moo tax nun nag kon lañuy ubbi waxtaan wi rek ci ñu wax yenn nag ci ay tomb ay question yoo xam ne yu interne lañ day waxee ci mbiri mbir yoo xam ne ci mbiri bopp la danaa ci tànn yu yu ndaw junj ko ngir ubbee ko waxtaan wi waaye loola it dana laaj ma laltaay ci yoonu murid li ci suñu boroom def ci lu koy jëmale kanam loo xam ne lu mat a xam la mat fonk muy ay muqawimaat loola kon dinaa ci dindi tuuti doog a indi nag ay mbir yoo xam ne yu mas a bàyyi xel la yu mas a saytu la suñu delloo ci njàngalem sëriñ tuba radiallahu anhu di fàttaliku li mu waxoon ne moo ko tax a jóg muy ay jublukaayam leeral na ko fu bari ndax da koo ñoom ndax koo xam da ngaa am foo jëm teel koo leeral loola dana dimbale ña bëgg a jëm foofa ànd ca ak yow moom dafa teel a wax ne li ko tax a jóg mooy xett li doomu aadama yi teg leen ci yoon muy tax ñu texe tey texe ëllëg lu ko tax a jóg mooy yeesal lislaam dundalaat sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola wax na ko ku bare bare ahmadu ila saada يدعو الملا بالعلم والعبادة واحنا في بري بري لما يس الإسلام واحنا في بري بري لما يدل محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم واحنا في بري بري لما يومت مني جملين كي يلا تجلين سنة محمد صلى الله عليه وسلم kon ginnaaw sëriñ bi bi mu amee ndigalul suñu borom subhanahu wa taala ci wommat doomu aadama yi ci xett li xeet wi dafa daal di rëdd aw yoon woo xam ne ca lay jaar ngir loola mën a am te ba mu rëdd yoon woowee dafa fekk mu xam li jamonoom soxla woo ci lu koy defar ndax xam gim xam lu yàq jamonoom ba noppi ndax ab docteur balaa mën a faj faj mate ji ci yoon day fekk mu xam jàngoro yi ka muy faj sëriñ bi nag loolu la njëkk a def muy li ñuy wax si xam jàngoroy jamonoom muy réer gi tasaaroo woon bëgg adduna gi tasaaroo woon topp bakkan gi tasaaroo woon yooyu yépp mu wax ko leeral ko ak yeneen jàngoro yoo xam ne moo nekkoon ci jullit ñi doon leen dox seen digganteeg ñu mën a am saadatu daare ni li nga xam ne moom moo ko tax a jóg mu gis jamono yooyu kon xam fi jamono toll ak li koy defar mu jaarele te ñi àndoon ak moom indi yar moo xam ne moo jur tey li ñuy wax yoonu murid suñu boroom nag def ci defal ko loo xam ne bëriwut mbooloo yu ko defal bokk na ca al iradatul qawiyya mooy quwwatul irada mooy fas-fas bu dëgër ndax lépp lu nit di wut bu amul fas-fas bu ko lal mu am ko dina jafe wala bu ko amee mu téye ko dina jafe kon sëriñ bi bi mu ñëwee lim njëkk a mooñaale ci ay taalibeem mooy pas-pas bu ndax pas boobu ci la woote ndax bañ na ko ba tarbiya bi tarbiya himma mooy bi mu doon def mu yitte ju kawe loolu nag mbooloo mu bëgg a fa nga jëm fokk mooy li ngay njëkk gànnaayoo te loolu suñu borom subhanahu wa taala defal na ko sëriñ bi ci ay taalibeem ñi nga xam ne moo leen yar defar leen mu amaat beneen melokaan bu ko yàlla defal mooy wahdatul kalima té lolu mbolo mu bëgg am li nga bëgg tay ak ëlëk lolu mënoo koo ñak muy and takko nek ben nek ben kat lolu yalla defal nako sëriñ bi waye defalat nako li ñi wax ruuxu tadaxiya mooy esprit de sacrifice nit ki mëna joxe bopam ngir yalla mëna joxe dooleem ngir yalla mën a joxe alalam ngir yàlla mën a joxe xam-xamam ak xelam ngir yàlla te du ca séentu dara lu teew lu jëm ci moom loola kon lu yàlla defal sëriñ bi la ci nga xam ne ñoom la yar waaye mu defalaat ko alxayawiyatu maanaam mooy di dund di yokku am doole biir boo xam ne moo fay tasaare moo koy yóbbu fu nekk ndax waxtu nekk ñu ngi gis ay mbooloo di juddu ay mbooloo di gën a yokk ci a ci anam yu bare bari loolu yëpp xayawu ya lay tekki ak dynamique yooyu nag ay atu la yooyu la ay muqawimaat la ay force la yoo xam ne suñu boroom def na ci yoonu murid ñu war koo xam war a xam ne mooy tax li sëriñ bi bëgg mu man koo am wala bokk na ci sax yi mu ko defal ndax du lépp luy mën a lim yooyu yu mën a am la mooy pas-pas bu dëgër ak waxdatul kalima mooy benn nekk benn yor benn kàddu ak tadaxiya nangoo def sacrifice ak nag am xeyaw yi boo xam ne moo nekk ci biir loolu nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala defal na ko sëriñ bi tax na yoon mu ci diggante bu gàtt mu amuk tasaaroo amuk yokk ba jaaxal ñu bëree bëri li ñuy wax temps record ci diggante bu gàtt am ci ay injaazaat mooy réaliser ci loo xam ne ci wàllu diine ci wàllu xam-xam ci wàllu koom-koom ak yeneen wàll yoo xam ne ci biir bu gàtt la njaboo taalibe sëriñ bi la yoonu murid la ko yoonu murid réalisé ba bindkat yu bari loola tax na ñu yittewoo yoonu murid di ci gëstu di xool aw doxiinam mu mel ne nag kon sàmm loolu yooyu sàmm ko ak teg bët ci li taxoon sëriñ bi jóg mooy lii tax ñu texe tey ak ëllëg dafa mel ne mooy jihaad ji gën a mag ci jamono yi ñu toll dañuy jihaad du jeex al jihaadu maadin ila yawmi alqiyaamati kon suñu jihaad ji gën a am solo mooy fexe ba li bi am yàlla defal ko ko ci biir mbooloo ci biir ay taalibeem ñu sàmm ko fexe ba dox jëm ci li ko taxoon a jóg luy tax ñu texe tay texeel ca loola moy kon ñu jaar ci yoon wi mu doon bañ ko wacc ca loola nak ni ma waxe won ne suñu borom dafa binde doomu adam muy fàtte mu bind ay facteur yo xam moy tax dundub doomu adam ni soppi ko waxtu nek moo tax di def muraja nek lu wa def muraja waxtu nek di xol di nag sa bopp yow mii fi nga war a jaar fi nga war a teg sa tànk ndax yaa ngi ko teg ndax yaa ngi sori wala yaa ngi jege saw dox yi gaaw na wala yeex na loolu dafa bokk ci li mënta ñàkk moo tax am na ñetti mbir yoo xam ne bëgg naa ko junj rek ci mbir yoo xam ne suñu mbir la yu ñu war a bàyyi xel war koo say ba ci njëkk mooy alqadiya altarbawiya beneen bi mooy alqadiya al iqtisadiya ñetteel bi mooy alqadiya al ijtimaaiya mooy alqadiya tarbawiyya mooy lu jëm ci wàllu yar lu jëm ci wàllu aw koom-koom ak lu jëm ci wàllu aw nekkiin mooy wàllu social ñett yooyu xëy na moom la ñuy junj rek ci lu gàtt gàtt ndax mbir la yoo xam ne suñu mbir bopp la yu ñu war a saytu yu ñu war a seet fuñ ci toll yu ñu war a seet fan lañ ci war a am ndax dafa am solo ci du ci ci suñu dund ku ne xam na ne ba njëkk mooy wàllu yar. ku ne xam na ne yar ponk la ci yoonu murit ndax moo ko lal mooy fondement waaye bokk na ci mbir yi gën a yitteel waaye gën a jafee bi jënd ci jamono yi ci toll xam nañ ne bari na ñoo xam ne ñi ngi li ñu man di góorgóorlu ci ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci yoon bi nga xam ne seen dund gépp ci ko jëmale ak ci jàngale loolu xam nañ ko gis nañ ko ñu ngi teg suñu waaye ku ne xam ne li ñu soxla ci boobu moo ëpp lañ kay joxe aaja bi moo ëpp liñ ci am liñ soxla ci yar ak liñ ciy def dafa tolloo li tubaab bi wax ne demande bi moo ëpp offre ndax bu ñu seetloo sëriñ bi yar moo ko taxoon a ko léppam yar la muy defar doomu aadama yàlla may ko ci may boo xam ne diggante bu gàtt yar na ab génération walla ay génération yoo xam ne gis nañ jeexit gi mu am kon yarut sëñ boobu ak nam ko doon defe lu matoon a jéem xam la yemuñ ci di ko dund waaye man koo tasaare man koo jàngale ndax ba nëgë ni suñu jàngukaay li ci ëpp yar boobu dafa mel ne dañ koy yar ci suñuy daara di ko yar ci suñuy kër waaye fexe buñ yar boobu dugg ci jàngukaay yi nga xam ne moo tasaaroo ci réew mi te réew mi fu ab yaru fu jàngukaay nekk wala yarukaay nekk fa njabootu murit ma kon nu ñuy fexee ba njàngaleem sëñ bi ak yarum sëñ bi fépp fu doomi yoon wi nekk mën caa jot loolu mbir la moo xam ne ma a bàyyi xel la ndax lépp yara ko yor ba tey amaguñ suñu institution yi bopp yoo xam ne day yar bi ñu maanaam yar bi ñu bëgg mooy ci wàllu yaru ruux defar ruux ak yaru ab taalibe am ko waaye amaale ci yar boo xam ne li ñu soxla ci suñu dundug àdduna mën nañ ko caa am te loolu mën naa am mën nañoo am yar boo xam ne dañ ca ja jàngukaay yoo xam ne dañ ca yar yaru taalibe waaye mañ caa am xam-xam yi ñuy soxla ndax tey damay wax ne waroon nañoo mën a am jàngukaay boo xam ne. li ñuy jàngal lépp loo xam ne ab murit war na koo xam war ko naa mel war koo man ci wàllu taalibeem ak wàllu yàllaam war nañ ko faa mën a waajal waaye mën nañ faa waajale koo xam ne suñu demee ba suñu soxla yi war a mucc moom mu mën ñu koo taxawal war ñu faa waajal koo xam ne suñu demee ba soxla defar ak immeuble ñu mu mën a nekk ñoo a ingénieur ak architecte yoo xam ne ci daara yooyu lay leen di ndax doon na am solo lool suñu demoon ba nga xam ne saa bu ñu soxlaa ku soxlaa mucc kii kilifa mën ngaa dem ci soxna Mbàkke soxna Bousso Mbàkke wala soxna Bousso Lo wala soxna Bousso Jaxate mucc fa te loolu li ñu ko mën a may ñu am ay jàngukaay yoo xam ne ñoo koy saytul suñu bopp yarut sëriñ bi nekk ci waaye xam-xam yi jamono laaj nekk ci te loolu dafa dafa dañoo toll ci jamono yoo xam ne laaj na ko lool ndax dëkk boo xam ne li nga soxla ci wàllu xam-xamu àdduna doo mën a am ku fa màggee yaroo fa mënal la ku la ko fa mënal rek feneen la ko jàng loola mbir la moo xam ne mbir mu mat a saytu la mu mat a bàyyi xel la te manqué wuñ alal di ko def manqué wuñ alal di ko def manqué wuñ pas di ko def xayna dafa doon lu bu kon buñ demee ba di ko day ñu ne kon dafa bëgg jot rek ndax mbiri sëñ bi du ci bare bari bu waxtoom jotee rek mu ñëw waaye nag kon waxtaane buñ koy waxtaane mën naa tegtale ne kon day bëgg jot ñu am ndax yar lépp lu la naqari ci saw nekkiin ci yar rek mu ko mën a saafara te dañoo toll jamono joo xam ne bu dootuñu jekkooti ci wàllu arme ak boole mën nañ laa bañ a jekku ci wàllu koom-koom mais mën nañ laa jekku ci wàllu xalaat mën nañ laa jekku ci wàllu xalaat ndax nit ki bu demee ba la muy rafetlu yow moom ngay rafetlu na muy doxale noonu ngay doxale te liy tax nag ñu mën a sàmm suñu ndaw ñi def ci ñoom gisiñ bi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ci ñoom mooy ñu am yarukaay yoo xam ne fa lañ leen waajale ba adduna bi ubbiku lu mu ubbiku ubbiku luñ gis rek am nañ nattukaay bu ñuy natte lu ak lu bon ba noppi am nañ nattukaay bu ñuy natte lu rafet ak lu ñaaw ba ndax loolu lu am solo ndax nit ki tey ne loo ko mën a tere tere ci mbir moo xam ne néewu la ci moom te mu gëm ne moo xam ak col la wala doxalin te mu ne dafa rafet wala dafa dana jafe mu bàyyi te rafet ak baax lu ñuy def ci xelum doomu aadama la bokk la la def waaw loolu yëpp nag diw lu mat a bàyyi xel la ndax ci la ñuy jàngal nit ki mu xam lu ko war diggam ak ñi muy def leen leen ñu muy lu ko war diggam ak boroomam lu ko war diggam ak moroomam lu ko war diggam ak kilifaam lu ko war diggam ak kim yilif loolu lépp lu ñu war a jàngal nit ñi la màggaale xam nañ ne am na ay effort yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def waaye nag am bàyyi xel taalib yi nga xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi ak yi nga xam ne ñu ngi ci feneen ñu am ñu waajal njàngaleem sëñ bi ban koo tënk-tënk boo xam ne fu ne dañ ko mën a yóbbu war nañu bàyyi xel ndax ci wàllu yar même taalib yi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew ña fa nekk yor fa seen doom doom yooyu na nañu jóge fii loo xam dañ leen ko yónnee ne lii ngeen war a jàngal seeni doom yi ku ca dugg école bu bis yëmbul jàng école nañ fexe ba lii ñu jàngal ko ko nga xam ne dañuy xam ne lii Tuuba la jóge muy lu ñu war a jàngal suñuy doom loola bi ay mbir la yoo xam ne xam naa duñ ko mën a xóotal lépp dañuy jënd rek ay ay ay waxtaan bi kon question bi ñuy posé rek ci domaine ci domaine boobu mooy naka la ñuy def ba am ay institution ay jàngukaay yu am lu ñu mën a jox lu ñu bëgg ci wàll diine wàllu yaru sëriñ bi wàllu xam-xamu adduna naka la ñuy def ba effort yi nga xam ne ñu ngi koy def te muy tasaaroo ñu di ko boole ndax loolu li ñu jafe la bokk da ñaar yoo xam ne kenn ku nekk ma ngay def see di góorgóorlu te ñoom ñooñu buñ mënoon dem ba boole seen i liggéey dana doon lu am solo. loolu lu mat a xool la naka lay mën a amee naka la ñuy def ba lii ci technologie ci mu àgg naka lañ koy mën a utiliser ba yar bi ñu mën koo tasaare njàngaleem sëñ bi ñu mën koo tasaare ci ñëpp loolu it mat a bàyyi xel ñaareelu question bi nga xam ne mu muy mat a bàyyi xel la muy wàllu koom-koom wàllu économie ndax liggéey dafa bokk ci yarut sëñ bi ci fondement yarut sëriñ bañ xamee murid yi liggéey waaye ku ne xam na ne gaawaayu doxub jamono war na tax nit ñuy liggéeyee ak la ñuy liggéey ak nañ koy nose ñu di ko xalaat ba mu nekk ndax man waxtu nekk damay laaj sama bopp ndax li sëriñ bi jàngale ci liggéey liggéey boobu suñu ko déggoon ni ñu ko war a déggee ndax ak ñàkk dina des ci Sénégal ndax ab xiif dina am ci Sénégal ndax kon chômage dina am ci Sénégal man loolu dama koy laaj sama bopp bu ma sa bàyyi xel ndax ku ne xam nañ ni taalibe yi murid yi ay liggéeykat lañu waaye jamono ji àgg na foo xam ne war nañuy xool liggéey boobee léegi naka lañ koy gën a nose ku ne xam ne ne yoonu murid solidarité yi ko xamoon la ci wàllu liggéey ba daana tax nag bëgg a teg ci sax bari na ñoo xam ne loola ca seen dugg ci yoon bi ngir xam ne buñ ca duggee ñu dimbali leen loola ñoo ci lañ duggee waaye bañ ca duggee ba xam njàngaleen sëriñ bi ba xam yarub sëriñ bi far ca see kon nag ñaar yooyu muy principe liggéey ak principe solidarité lu am solo la waaye jamono ji nag dafa am lu ci lu ci lu ci yees loo tax ñu war koo xalaataat nañ koy saytoo ndax ku ne xam na ne ñu ngi ci crise économique ci àdduna bi boo xam ne dafa daj àdduna bi ku ne xam na ne li ñuy tuddee secteur informel ci boo xoolee taalibe yi foofu lañ gën a yëngu di yëngutu bari na lool léegi ay pression bari na lool ay jafe-jafe ku ne xam na ne technologie bi àgg na koo xam ne bari na lu fukki nit daan def léegi kenn nit mën na koo def yooyu yëpp nag ci ñu war a bàyyi xel la ci ba gën a nosaat liggéey bi ñuy liggéey ak coono yi ci daj ñu gën ko nos ba njariñ bi gën a mën a tasaaroo efficacité bi gën a mën a am kon li ñuy laaj foofu rek mooy naka la ñuy exploité njàngale mi sëriñ bi jàngale ci wàllu liggéey ak wàllu jàppalente ba mën am économie bu dëgër ndax sëriñ bi kat li mu bëggoon ci ñun ci wàllu liggéey du liggéey rek ngeen dajale alal nekkul woon liggéey rek ngir capitalisme nekk ay capitaliste waaye liggéey boo xam ne adduna bi da nga koy jekku ngir sa àllaaxira ndax dem ma mën a bopp ma li nga ci sa wàllu diine nga war ko nga mën koo sottal moo taxoon axas min duniyaahu zaadi lil jinaan la waxoon adduna bi moom li ci jël lépp yóbbalu àllaaxira la waxoon kon liggéeyu murid yi mu rëy rëy dafa war a nekk jumtukaay ngir defar suñu diine kon loolu nag ngir ñu man ko danañ weesu liggéey bi niveau bi mu nekk dinañ ko weesu ndax war nañoo laaj fi mu ne nii naka la ñuy mën a def ba am ay institution financière yu dëgër dëgër yoo xam ne képp ku bëgg a liggéey ci ndaw ñi ak ci soxna yi la nga bëgg a liggéey ñu mën la koo jox bu ñu la ci teg ay intere su ma fi déggee soxna su baax soo xam ne mu ko tuddoon mbooloo mi xam nañ ko liggéey liggéeykat ma seetaan ko ci làmp Fall bis mu ne ba muy tàmbali ab ab ab ab ab ab maanaam lebal kaayu xaalis bu nekk kaw moo ko lebal lam tàmbale waaw man jàpp naa war may am kees boo xam ne képp soxna bu bëgg a liggéey bokk ci njaboot bi ñu mën la caa jël lu ëpp fukki million jox la ko nga mën a liggéey delloo si du duñ la ca tegal benn intérêt te loolu buñ ko ubbi woon weer bu ko am luñ ca bëgg ci ak ah, mili euh, am ko te liggéey ndax liggéey la ñu sëriñ bi jàngal kon nañuy liggéeyee ak jumtukaay wa ñuy liggéey war nañ koo mën a fexe ba jàpp nga te loolu mën naa nekk ndax fexe ba am ay institution financière mooy ay ay ndax ay ay nit rek ñoo koy taxawal ay nit rek ñoo koy taxawal ci bare muy màgg diggante bu gàtt mu def mu liggéey ay milliards te loolu mënal nañ ko suñu bopp waaye xëy na xalaat yi moo ci jëm a xëy na daa jot mën naa am buñ ko waxtaane mooy ko jot te loolu nag autonomie ba ñu sëriñ di loolu bokk na ci tax ñu man am waaw liggéey bu toll ni ba koy kii bu bëgg ñu defal ko suñu bopp te léegi am na jumtukaay yoo xam ne buñ ko amee luñ bëgg mën nañ defal suñu bopp te duñ dellu ci loolu mooy nañ jàpp nit ñu mën a liggéey nañ jàpp nit ñi ñu mën a liggéey ñi nga xam ne yàlla baaxee na la ñu doon ay milliardaire war nañoo dem ba xam ne bokk na ci xidma ñu jàppale ay nit ngir ñu am liggéey te yàlla rek tax kon mënoon nañoo dem ba am taxawal ay investissement yoo xam ne lañ ci jublu rek mooy créer emploi nga xam ne jaamu yàlla lañ ci jublu ndax na koo xam ne jaamu yàlla mën naa nekk di jàng alxuraan suba ngoon ak koo xam ne jaamu yàlla mën naa nekk di woor waaye am na ñoo xam ne seen jaamu yàlla ba mu gën ko a baaxee mooy ñu fekk fu war a mën a liggéey ñu dimbale ko ba mu am liggéey te am lu muy suturaal njabootam te loolu loolu ci xet mi bi gën a màgg la bokk jamono yu ñu toll xëy na suñ demee ba xitma dégg bi ñu ko war a dégg gën a yaatu loolu mën naa ëpp yeneen ku ci wàllu koom-koom war nañoo mën a dem ba ñi nga xam ne ku ne xam na ne immigration lu am solo la ndax taalibe yi ñooñu bokk nañ njëkk a génn njëkk a tasaaroo di liggéey ci biti ñooñu kon encadré leen jàppale leen bañ mën a investir fii ci réew bokk na ci liy gën a dooleel li ñu bëgg mooy économie boo xam ne éco suñu économie bopp lay doon. te bokk na xam nañ ne bari na ñoo xam dañuy liggéey waaye li leen di gën a jafe mooy lañuy ñuy fii am ñu teg leen yoon wuñ ko saytoo ba muy dox te léegi gis nañ ñu bëree bari dañuy dem ba nga xam ne seen doole day jeex waaye amuluñ luñ mën a taxawal fii te foofu ja yaakaaruñ faa dëkk yaakaaruñ faa faatu mooy ñu bëri dañu mujj yóbbuwaat seen i doom ngeen ñu remplacer leen te yëpp war nañoo xalaat ñooñu ay taalibe lañ te te buñ leen taxawoo dana gën a dooleel suñu économie bopp loolu kon ñi nga xam ne ma a bàyyi xel la kon bi may mujjee mooy lu jëm ci wàllu social ci yooyu yi na lu mën a yaatu la mais dañ koy tënk ci mbirum ndaw ñi ak mbirum soxna yi ku ne xam ne yoonu mu ni ko ni ko sëriñ bi tëddee ba duñ yem rek ci toppatoo nit ci wàllu yaram wàllu mu xam rek waaye dañ dañ dañ maanaam dañ daan maanaam dañuy saytuwaale nit ki ak dundam bu dee ña ngay tàmbali ci bu juddoo ni wutal ko ñu suñu waajur ya seen njaboot wutal luñ leen woon ay ay tuur dañ daan dem bu gan mosaa judd sax dañuy dem ci sëriñ ba sëriñ baa ko wutal aw tur ñun sama bi suñu wàllu moo ko defee ci liñ ma wax kon mooy ñoom booy juddoo booy jàng sëñ bi mooy yittewoo sax jàng boo demee ba war a denc wala nga war a mën a dem kër sëñ bi day yittewoo sa denc ak sam dem kër boo waree liggéey sëñ bi day yittewoo sa liggéey kon yoonu mooy day saytu nit ki di saytuwaale ak dundam di saytuwaale aw nekkinam loolu bokk na ci li señ bi tabaxé yoro moom na ci force ñi nga xam suñu borom def nako yoro mo mu doon ñu mata xam lu mata sey bu baax ba waye nak buñu buñ bok na ci li mata wo kon moy ndaw ñi rawatina soxna yi ndax ku ne xamne ne soxna aw taxawayam ci yoon bi taxaway bu am solo ci walu ñaar gis nañ ko njabootu Serigne Touba gis nañ ko ci njabootu taalibe Serigne yi ni góor ñi Serigne si di yare ay njaboot di leen defar di leen toppatoo di leen taxaw di leen saytu ni la soxna yi di yare ay njaboot di leen toppatoo di leen saytu bañ am luñ bëgg loolee kon lu mat a bàyyi xel la lu leen mat a dimbulee la kon li ñuy dimbulee sëriñ bi bëgg a tarbiya ay nit ba nga nag ñu mën koo ñu am ay yoon ba mën a taxawal barab daara moom lañu war a taxawoo soxna yi bañ mën a am ay daara ku ca yëngu ñu jàppale la ci wàllu boobu ndax ku ne xam ne nag jagub société mi ngi ci jagub soxna yi loolu moom du la ñuy du la ñuy du ñuy waxtaane loolu xam nañ sax soxna yi amee jàppale gi war a jàppale am taxawaay bi war a taxawaay loolu société bi ko yëg kon nag jàppale leen ci wàllu jàpp ñu ñu ñu am jumtukaay ak man-man ak possibilité di def seen liggéey moo xam ci wàllu yar la moo xam ci wàllu koom-koom la loolu mat a bàyyi xel la ci biir yoon waaye ci taxawu leen ci seen nekkin ci biir kër yi loolu lu mat a bàyyi xel yor ak jaamu yàlla bàyyi mooy ab xadu xalaal indallah te léeg-léeg day am buur ñoo dañuy woyafal ak bàyyi loolu loolu lu mat a bàyyi la yor bi lañ ci gën a góorgóorlu wàññi bu baax bàyyi te loolu mooy ñu gën koo fonk bu baax xam ne jaamu yàlla xam ne mu qaddas la lu sell loo xam ne kenn waru koo foyee kenn waru koo kafe dundu doomu aadama dafa foor rawatina dundu a bàyyi ci wàllu sunna yi ne xam na ne ndaw ñi jublu nañ yoon wi ñoom it ñu war leen jàppale ci yar bi ma waxoon waaye ci jaw leen jàppale ci ay animation ndax ndaw ndaw ndaw dafa laaj yëngutu mais yëngutu boobu mu laaj nañ fexe ba tëral ko yoon woo xam ne yëngutu ko bu koy amal njariñ ndax ndaw mënut a toog boo xoolee ndaw ñi ñooy ñooy organiser seen bopp ñooy defal seen daayira bopp ñooy organiser seen i activité bopp waaye orientation yoo xam dañ leen koy jox loolu lu mat a xalaat la ndax ndaw mu ndaw mënut a toog ñi nga xam ne taalibe la boo xam ne mi ngi yow ci kër sëñ ba ba doon max ba dëgër dem Ndakaaru kooku relation ak sëñ ba mën na jot ak mu jot bu ko siyaaree loolu rek muy jël ba waaye ka xam ne foofu la juddoo yaroo ko kooka la muy laaj mooy animation mooy tamshi xam ne bu bu bu bu koy ko bàyyee benn waxtu wu loolu it war nañoo xalaat ci naka la ñuy ndaw yi ci teg leen ci yoon woo xam ne mooy danañ mën a def ñoom njàngalam sëriñ bi ndax ndaw moom boo ko wut boo ko yëngalu wut fu mu yëngatu na ci ay ndaw waaw ñu nga xam ne bis bu set ñu def dara wala ay bis bu nañu def dara wala weeru ñu ñu def dara ndax ndaw mun ko toog ba at nga ñëw nga wax ko dara tey mu téye loolu ba at ma dellu donte loolu lu ko mag mën a it ndaw mun kon xool ay barab yoo xam ne ndaw ñett dañ fa mën a daje mu doon loo xam ne programme ba ñuy yor ci wàllu ay animation culturelle yu ñu leen lay doon yoo xam ne yu ñuy seet lay doon yoo ba mu ñor lay doon yoo xam ne dana leen amal njariñ bu baax a baax kon yooyu mbir la wàllu nu ñuy nosee suñu wàllu bi nga xam ne mooy euh, ñu alxiyaada ci boppam loolu maanaam kenn ku nekk ña nga jaboote nga jaboote leen bu baax taxawu leen na nga leen war a taxawoo loola ci ñi nga xam ne ñu mat a bàyyi xel la ndax yor mooy tax li ma waxoon fi ñu bëgg ji jëm ñu àgg ay mbir la yoo xam dama ne woon du ma dugg ci fond bi yu ci nekk dama koy tudd rek euh, ndax kilifa yi fi toog mën a man cee indi ñoom xalaat yi nga xam ne mooy yi ñoom ñun daanaka dañuy posé ay di laaj rek di ubbi jotaay bi rek waaye woon ne dañ ñoo dañoo war def waxtaan ndax fanweeri nit ma waroon wax sax yaakaar naa jéggi naa ko tuuti. waaw bi alhamdulilah kon maa yaakaaroon jéggi naa fanweeri nit ndax ci fanweeri nit laa ko bëggoon a yemale kon li may daaneel rek moom ñu xam ne yoonu murit ci yaakaar yi lislaam ci jamono ji la bokk. kon loolu dana am ay défi yuy jóge ci biti waaye nag défi yuy jóge ci biti li gën ci muwaajaha ko lu jë lu jëm ci la moom mooy defar défi jóge ci biir loxo loolu rek mooy arme Sëriñ Tuubaa moom li ko yàlla defar buñ ko sàmmee loolu doy na gànnaay ci lépp lu mën a jóge feneen ndax ku ne xam ne kuy xeex lislaam du fi bàyyi yoonu loolu fokk ñu xam te ku ne xam ne ne lislaam lu baax la nitu yàlla la te loolu lu ko jekk yàlla moom lu wax ne naka jekk dañ lu ñàkk ay lu jàngoonteeg moom kon loolu bu ñu ko xamee rek suñ mbir yëpp dana jàpp ndax li gën a am solo nit ki bu doonee référence xam ne référence li gën a doy waar mooy nit ki doon référence sa xamul référence kon nag yàlla na yàlla boole dimbale eh, li nga xam ne moom la mbokk yi jublu ci waxtaan wi yàlla ci yàlla def ñu ngi jóg loo xam ne dëng na loo xam ne waruñu ko war wax euh, wax ko lépp lu ci jubit ndimbalul yàlla la lépp lu ci dëng ñu ngi koy jégalu bu baax a lu defar rek loo xam ne dañ koy ubbil mbokk yi rek lañ ci jubloo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu